asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen siyaare yéen ñëpp ñu ci nekk ci turam ak santam man la Ahmed am na ci yow ñu ma xam déjà donc euh, ñu gën ma xam ne aussi ci Seydou maa ngi fii à Londres di liggéey Top Top Sen ci responsable yi nekk fii à Londres donc bëggoon rek waxtaan nag suñu mbokk yi nga xamante ne ñooy utiliser carte Postpay yi rapidement partager ak ñoom benn information. Euh, d' abord dañ leen di jégalu ah parce que xam nañ ni fan yëpp am ngeen problème ak vérification de sécurité yi ñu gën ko xam ci 3DS donc euh, ñun yëg nañ ko boo ba léegi ñu ngi ciy jokkoo ak euh, poste pay di jéem a xool ak ñoom nu ñu ciy mën a indi saafara ci lu mu gënee gaaw donc euh, ñu ngi ciy liggéey ak ñoom bàyyi bàyyiwuñu ñu ngi leen ciy masaw bu baax a baax a baax di leen ciy jégalu aussi. pour l' instant solution alternative yi mooy euh, bu fekkente ni yéen ngi yore yeneen carte bancaire yu dul poste pay mën ngeen ko utiliser pour def seen transfert amul benn problème mu ngi dox bu baax bu dul loolu aussi bu fekkente ne am ngeen ni banque posta application bi ñu ngi def ay vidéo liens yi c'est disponible si suñu site bi dinañ ko partager ak yéen incha allah euh, comme ça lien yooyu ci vidéo yooyu dañ leen expliquer naka ngay def ba euh, contourner problème boobu ak application banco posta bi bu soobee ñu leen di masoowaat ñëpp nag di leen di gërëm te di leen di jégalu bu baax a baax a baax jërë ngeen